maa ngi leen di delloo ziar. tey tey moomoo may ñu moomoo may ñu tey mu mel ni bés bu mel nii ñu di la sargal Fallou Ndiaye def ko Yaxya lan la yëg. kontaan di nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm Fallou aw ma lan laay wax xaw ma it naka laa koy def. parce que bu ma xamoon baat ban laa war a wax pour remercier ko dinaa ko def mais malheureusement. Euh, xaw ma laa war wax vraiment kontaan naa suma xol sedd na yàgg naa ci làmb yàgg nañ maa teral waaye bii day neex na ma lool. ki ko def di doomi Bawol dëkk Bawol yow ngay doomi Siin ak Saalum Fallou def lu mel ni tey mu mel ni kon sa xol moo fees mënoo wax mais yaakaar naa tamit Fallou boo ko gisee tey ci li simple bi ni mu ciy doxee mu mel ni yow it kon Fallou daa mel ni juumul de parce que gis nañ muy dundal li simple. waaw juumul boo gisee ma kontaan fàllu miinu ma ko lool xam naa ko en tant que promoteur euh, lim def daf ma bett. Souleymane boo tax ma ne la yàgg naa ci làmb am naa ci décoration bu ne mais bii daf ma neex parce que daf ma bett diggante biñ ko xalaatee def ko gistu naa ci moom tuuti. am ci seede yu rafet maa ngi koy wax démb ak Max Mbergane xëy na tey duñ ko mun a wax mais bu luy paasee dinañu toog ma ak Fallou dina xam ne boole naa ko ci sumay nit parce que nag teraanga la bu ma ji te teraanga dañ koy delloo vraiment kontaan naa kontaan naa suuf sedd. sër bi nga ko jox. sër bi waatoon naa ci yàlla ni après koor gi rek laay dem ci làmb yi. moo tax lii mooy suma premier sotti ren. Euh, moo tax kontaan naa daal ci tënk. Faata production si yaa ko jiitee muy structure buy tëgg ay làmb ñu gis la daaw nga def mbuur lu doy waar ma dégg na yaa ngi waaj ñaaxar loolu kañ la. ñu ngi def euh, six programmes après koor gi. ñaaxar la ñuy ubbee Joal maîtriser wu ma nag programme bi ma taxaw. mais ñaaxar la ñuy ubbee le quinze incha allah. seer bi nga jox Fall nu mu tudd pour lan la. waaw loolu Fall laa ci waxtaanal. <laughs>